mbokk yi ñuy teewlu ci Xam Sam Réew TV dellu siwaat naa di leen nuyu di leen ziyaara muy mbokk yi nekk ci ci pango yi ni ma koy waxee rek support Xam Sam Réew ci Amérique ñi safoo xam sam réew ci Facebook bi waaye du ñu fàtte waa sàmm sunu mbatit Ablaye Cissé Saa Wolof du ñuy jébbal nuyoo ba di nuyu mbokk yi nga xamante ni bii ñooy saa njaañ sey te mooy ñiy commentaire ci youtube bi di ziaré Serigne Abdou Aziz Touré ak bok yépp rek fas yéene ci si len ko mangi won ci ñaar fukélu patch bi xam ngeen ni ma ngi won ci farabiram lo muy ma abdou moom moom nga xamante ni moo ak magam Amadou Fara Biram Lo di Duduma Mbay tubaab yi tàggatoon nañ leen njal leen sëñ bi ñuy jëf ci ay jëf yu doy waar maa ngi woon ci rakk ji di Fara Biram Lo te sëñ Musaa Ka tuddi ko maa Abdu Lo moom moom yi nga xamante ni loo ne jëfal na ko tubaab yi tubaab yi tam xam ni lii mu nekk du dëgg waaye ñu gëmm ci seen bët ndax waxoon na leen ni Buurba Jolof Sàmba Lawbe bi mu jébbaloo ci Sëriñ Tuubaa te ñu bëgg koo fexeel Sàmba Lawbe lañu ko jal euh, ma Abdou loolu ñuy jal Samba Laobé mu dem bindub leetaram li gën a xoromu ci leetar bi mooy leetar bi jamono yi ko ma Abdou di jox tubaab yi ñu war koo jëfandikoo ngir folli Samba bi génne ko réew mi dañoo wax ni leetar bi ma abdul neena na da doon def tournée bi mu demee ba ci wetu bambay diggante foo xam ni digganteem ak Bambey fanweeri kilomètre la mu fekk fa ab néeg bu nekk ci digg àll bi ay gaal nekk ci biir néeg ba bu mu ubbee gaal ga ca kaw ci la fekk lettre bi mbokk yi Bambey ma nga ca Bawol Mbàkke Baari gi sëñ bi doon génne nekk ci Jolof loolu rek doyoon na pour wane ni leetar bi ndax dëgg loo def te muy dëgg boo ko doon nettali téeméeri at itam na mu amee rek noonu nga koy nettalee waaye bu dee loo sos la boo ko dee nettali day yokkoo ko wàññiku ndax dangay ngay fàtte ndax amut yaa ko sos rek mota tax ñoom xalaatuñu woon nii kat wii lay jubut ndax Bambey ya nga ca Bawol Mbàkke Baare ngi ci Jolof déggal ma woowu lay fa sàmbalaw bi mu bind lettre bi fa mu waxee ni foofa la fekk lettre bi moom moomu nga xamante ni bii nag bi Sëriñ di jëmbat garab gi di yoon wi moo taxaw ni garab gi du fi màgge ànd ak tubaab bi wala bi sëriñ bi di taalam bii di yoon wi moo taxawoon ni taal bi eh, du fi tàkke lu man ci fay taal bi def na ko sëñ bi génne nañ ko yóbbu ko Gabon mu ñëw yóbbu ko gànnaar jële ko fa indi ko ceen jële ko ceen indi ko njaareem garab ga mu doon jëmbat ma abduloo ni du fi saxe garab gi dem ba daj fépp meññet mi di rot ñëpp di ci jëfandikoo bu deenub taal la itam taal bi sëñ bi taaloon mu yoon wi tam ni da koy fay léegi dem na ba doonuk daay ngu wër fépp sëriñ bi nekk njaareem fenn fu ne ay nit di fa jóge di ko fa fekk si ma abduloo at yaa nga yokk lam manoon mënatu ko tubaab yi dafa am diir boobu boo leen ko liggéeyalee dañ naan la demal noppalu ji demal retraite bi mu retraité nag te mbirum Serigne tubaa gën di dox ñu di ko gën a dégg muy gën a siiw na mag ja defoon Duudu mbay ñëw ci sëriñ bi doon sàkku ndimbal moom ma abduloo ni kat eh, sëriñ Tuubaa mi daal am naa soxla sos dinaa dem diisi ko ko wala am naa ay soxla yooyu danaa dem diisi ko ko moom day su fekkoon ànd na ak jom wala mu ànd ak ngor xelam waroon naa dem ci la mu doon jéemal Sëriñ Tuuba ba mu ni moom daal fi ma jaar ak moom du dem di ko waxi sama soxla waaye booba xam na ni dëgg rekk mooy dëgg xam na ni taal bii mu doon jéem a fay wala garab gii mu ni won du fi màgge ki taaloon taal bi ki jëmbatoon garab gi mooy ki nga xamante ni bii mooy faj soxlay ndax loolu rek moo mën a tax nit ki nga noonu ko li wala fi wax naan ay li yëwén boo ko déggee pexe amatul ndax aw ay du bu ñu wax naan noonu daaw bu dee soppee ren pexe daa amut lolu modal ma abdullah jang na alquran xamna la alquran wax serigne bi jogna mu and ak tubaab bi diko xex xeex liggéeyal na tubaab bi ba tubaab bi diko soxlatun la demal noppalu ji serigne tubaa talam ba di berberi jëm kaw ngarab gi cari di law daj adina bi ak ñàkk jom tax na moom ma abdulo mu ñëw fekk ci sëriñ bi njaareem bi mu ñëwee sëriñ bi dafa woolu sëñ Modou Moustapha ak sëñ Modou Awa Balla taawub sëñ bi ak taawub borom daarul moot jox leen ndigal ngir ñuy toppatoo ma Abdoulo moom la mu yittewoo ci ay xéewal yooyu ñoo ko doon toppatoo bi mu nee sëriñ bi man di yow laa yittewoo woon yow laa soxla woon fekk booba mbarab bi sëñ bee fi nekk moom sëñ Modou Moustapha ak sëñ mu Awa Balla sëriñ bi xamal ko ni ko yitte ji de mën nga koo wax ndax kii Modou Moustapha mooy sama taaw sama doom Modou Awa Balla kii mooy taawub Ceerno su fekkoon ni am na dégg-dégg sëriñ baa ngi koy cax walla sëriñ baa ngi koy xamal ni ko lii dey ñoom ñaar ñii dey ba ngay fexe sa fexe ya ay tut tànk la ñoon xañ na bu say pexi joyoon du deme nii ndax borom daaru muuti waajuru sëñ mu daw balla kere ba d'administrateur de Saint-Louis boolee borom daaru muuti ak ma abdoulo ngir ñu jëli si ngir ñu dem Mbàkke Baari ma abdoulo mi ñëw njaareem tey moo ne woon borom daaru damay fanaan ma abdoulo mi ñëw njaareem tey moo doon wax Leclerc ni ko Ahmadou Bamba dem naa Mbàkke Bari niko ko nan ànd dem mu ni ma ëwmu fas war nee na ma jox ko yaari fas mu ni ma munumaa dem sama yaram day metti naa la boole ak sama rakk ji di Ibra Fati boroom Daaru ngeen ànd dem Ndar muy ay nar yoo xamante ni bii def na ko it yoonu gànnaar bi <laughs> ndax borom Daaru bi ko sëñ bi yónni Ndar Demba Kebe la àndal waaye loolu yëpp pexey ma bi mu waxee sëñ bi ni ko dama laa soxla sëñ bi ni ko ñii moom du ñu looy wax ak man man nañ koo fekke mu ni sëñ bi man de li ma tax a jóg dama am ñaari yitte yitte bi ci njëkk dama bëgg aji màkka yitte bi ci des mooy dama liggéey ba retraité mu bëgg sama doom wootuma administration coloniale bi jël ko mu doon fonctionnaire yaari mbir yi daal ñoo ma tax a jóg waaw ma Abdou Lo nga doon xeex tey boo bëggee dem Makka moom loo ko ci dugale kii nga doon xeex tey soo bëggee sa doom wuutu la ndax jafe-jafe tàmbali naa am ci ay koppar ndax su weer deetee dootul jot salaire pension de retraite lay am mu bëgg nag ñu jël doomam ngir moom mu amub salaire ñu di ko fay weer na ko bàyyam amee woon sëriñ bi ni ko ma laaj ko sunu borom dem julli ñaari rakka dellusi si ni ma abduloo ñaari mbir yi ngay sàkku dey muy dem màkka sunu borom nee na munta ne sa doom ji nga bëgg mu wóotu la itam sunu borom nee na munta ne ñaar yi la taxoon a jóg yëpp benn mënu ci nekk ma Abdoulaye ni ko kon damay dellu sëriñ bi wax sëñ Modou Awa la mu jël as ngisee def ci xaalis bu baree bari sëñ mi ko àndal ak moom yoro ko ay kaakeem wala nga gunge ko ba ca fasaxaar ga muy gaar ba bu ko defee koppar yi nga jox ko ko sëñ Modou Awa Balla mooy nettali de nee na ba mu àndeeg ma Abdoulou ba ñëw ba ci gaar bi ci saxaar gi sëñ Modou jël ngisi sa ni ko lii de ay koppar la sëriñ bi moo ni woon naa la ko jox ma Abdoulaye ni ko boo demee santal ma sëriñ bi nee ko man ab fonctionnaire laa woon du paas ci saxaar gi réquisition la am mooy kayit yooyu boo ko yoree soo duggee ci saxaar doo paas daal di dugg ci saxaar ga sëriñ Modou dellu xamal sëñ bi ko koppar yi day jëlu ko sëriñ bi ni ko yàgg Modou Moustapha mii de li taxoon ma woo leen ñu leen toppatoo leen ko dama ko bëggoon a wan ni sama taaw bi ak taawub na ba ma àndeek na ñuy tabax yoon wi yaa yoroon sa marto ngir toj tabax bi seenu teewaay nag moo koy won ni tabax bi taxaw na kon ma Abdoulo sëriñ bi nga xamante ni moom la doon xeex ah dem na ba nungu ni kat mi sëriñ bee ko yor ndax su bëggee aji makka bu amee paas na dem ndax da doon sàkku ci sëriñ bi mu may ko paasu makka su fekkee doomam daa bëgg mu liggéey ñi mu doon liggéeyal ñi tubaab yi day wax ñoom ngir ñu jëlal ko doomam waaye xamoon na ni mbir yi sëriñ bi lay mën a lijjanti ko ndax nit ki mënoo koo noonu ni ma loo noonoo woon sëriñ bi tàggoowul moom bañ ko yóbbu gànnaar moo ko jël si njaareem na mu ko defoon ca bañ koy jël si Mbàkke Bari tey mu wàññeeku am soxla ñëw di ko diis sëriñ bi kan mel na ni am na lu mu yëg ba mu delloo nag la mu bëggoon amut demul Makka doomam itam wuutuwu ko mu tàmbalee am jafe-jafe koom ba ni mu faatu lu tax ma ni mu am jafe-jafe koom moom musta jóg ci nguur gi ba ci conseil général conseiller la woon conseil boobu nag bi mu faatoo ñoo wone ni bàyyiwu fi ñaari dërëm ndax am na conseil colonial boo xamante ni lañ fa waroon a waxtaani mooy ordre du jour bi mooy sàkkul ndimmal jabari ma abdulo ak jabari duudu ma mbay duudu mbay moom jabarom tubaab la woon ca conseil ba ñu ni kët sunu nattangoo bi doon conseil ni nun te faatu muy ma abdulo jabaram bii mu bay aki i doomam am na ñuy jafe-jafe dund ndax am na pension buñ ko waroon di fay waaye ba mu faatoo ba léegi jabar jaa ngi ciy dox waaye munta fexe ba am këyit yi tax mu mën a jot ci pension bi Dudu Mbaye itam jabaram jee Amadou Fara Biram Lo moom tubaab la waaye moom it dem na ba am ay jafe-jafe ñu dajale dajale pour ñoom ñaar amuñu defe naa lu muy six cent francs te ci biir conseil boobu ordre du jour bi li war a waxtaane bokk na ca koppar yoo xamante ni bii sëñ Modou Moustapha bi sëñ bi woon moo sëñ Modou Awa Balla tubaab yi yoraloon nañ ko ko ci école franco mouride bi nekkoon njaareem muy daanaka juróom benn fukki junni Adama Lo conseiller la woon ci ordre de jour boobu ma ngay wax ni mm, sëñ Modou Moustapha xaalis bi ko administration bi yoral mairie bu Njaareem muy daanaka juróom benn fukki junni nañ ko ko fay ndax yitti woon xaalisam ndax day tabax juma ka leble daanaka juróom benn fukki junni tubaab yi ba conseil bi di soññ fay leen ko boroom te ca jataay ba ka ko doon xeex moom ñu di ko yalwaanal moog magam seen doom yiñ ñu fi bàyyi ak seeni jabar amuñ lu ñu lekk bokk yi ma Abdoulou fii la mujj kon lama waxoon rek tubaab bi la doon liggéeyal retraité na am nay jafe-jafe waaye mag ñi doon laxasoon doon liggéeyal Serigne Touba day ba ba addinay tukki seeni sët ak seeni sëtaat barke bi day yokk rek kon fii laay yemale ñaar fukkeelu pàcc bi di leen sont di leen gërëm di leen wax ngeen def ni saa wolof Ablaye Cissé di séddale vidéo yi di ko partagé di ko aimé te abonné ci chaîne bi ngir Video buñ dugal rek ngeen man ko daal di jot maa ngi leen di sant di leen gërëm ngeen jëf